gi ci sal xol yi mooy ëpp iblis jaanama loolu leer na sëriñ baaraam iblis sëriñ la oon doon jàngal ñooñ asamaan ci bu juuf ne rem nga ko ala gomlel sëriñ baaraam maay baraama baraama baraama baraama baay baay baay baay baay barama ku yal kooba jàkk du ko faat moo de jàmburus mbottu xol suufe layta sidi barama baay barama góorgóorlu leen jéem a yàlla lii mooy musal jaam loolu la yàlla sant jaamam sidi baramaay góorgóorlu leen jëm a xam yàlla li mooy musal jaam loolu la yàlla sant jaamam su di baraham sàkku leen xam yàlla mi leen poosal masil ngeen da dox sakom neen du taxaw gëm leen su di baraham su di baraham dund wen ba suuf si wii asamaan dun bi kenn na ndoo la gëm leen sudi barahama addinaak li doye di li ci biir ku ci topp sa nafsu balaa nga dee reccu gëm leen sudi barahama addina baagam caax la doy fañ ma dangay root ba dee muy tuur ngay reccu gëm leen sudi barahama laxasaayu leen bu leen fàtte yàlla gaañu wàcce gaaw na ay na ngorom ñëw na soodaan sidi barahamma ku xas ba soobu ci faydu melal li soldaar néew bu yëngoo fan wa jeexul sidi barahamma new bu deewee bañ di ko tàgge mu jug di tu sóoli mu dem tool ya deewut si di baraham ma ibrahima juf melal ni ki sanqaani ci bàkk baraham tem gis na ni ki nanka si di baraham bàyyi gën ci doom bilaay ñun nga ñëw na sodan si di baraham futuwaati lahmadi bi yes bàyyi gën ci doom bilaay ñul na ñëwal soodaan sidi barahama ruul wu jot bi yes jaaxal nga ibrahima juuf naka nga doonoo sañiñ koy wa sidi barahama ruul wu jot bi yaay elimalimul ko malakoot xatri lara zambi doomaas sidi barahama jege feskat takuta wat fallare julli ngeen ba dee bu xamul sëriñ la ci woylul sidi barahama barahama barahama barahama barahama barahama baay baay baay baay baay julli korite ga sam ga day ga jës mu day déggee naa ca dëmb mooy tey suñu baaraam mbindeef yaa nga def kuré kuréel ritma wuti saam ña ngay ay na nuuram sidi baraxam ay na nu xuloom biñes ku la yaakaar balaa dell xaybu yëcci pey malaw la la sidi baraxam xaq qadri wa miqdaari al لا قبر خديجة امرأتي نومي بارا طويلا بانتصالي جربا وامنات نظرت في حب سلق أبر على قالي خاتبنه لنفسها أمنات لجميع الآباء والأنجال حين جاء الأمين بالوعي في الغار فوافى البر روم الضمال فهي أون الحادي على شق الوحي قديما بفيلها والمقال ربما جاء المصطفى كل امر في وجهه الموالي وزمر واصغر فيحر نن له آية في الأول بعدها جاءه الأتيق علي ثم زيد العثمان بعد بلالي وأتى آمر وتروءة صاد وزبير جاءوا لنيل الوصال وابن عوف نبيدة وسعيد حمزة راب ليس يوم القتال بين والإمام الفاروق بعد أتاه جاقتفاء للمصطفى ذا اقتدال خلنا دين بعد الدين ذي إفضال ونساء ذات النتاق وأم فضل أم لأيمن المفضال ونساء ذات النتاق وأم فضل أم لأيمن من طاله بعد أم الجميل ثم نظاء بعد حاتيك كلهن غوالي ثم لما نالت يا هذا الأب القلال مزاد قريش كل ارتيادي فتكن بعد بعدهم عذبهم لف نفسي من ياسرين وبلال لف نفسي بالمصطفى إن أتاهم أمة مولمة مخلوصة شد منهم أذى وما شرفوه عدوا في الغدو والنعسان هاجروا ذاك في الشيب من سلاسل صودا كمين يصعد فرج الله كربهم قام سبا دل وما نوال فرج الله كربهم قام سبا نور ونار ثم ليل الراي في طلقه ببراق فاز فيسا ون في شانه دنا فتدلى ليس قرب المخانف هم قالي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله لا اله الا الله daa الله لا إله إلا الله إننا برحمة إننا برحمة إننا برحمة إننا برحمة إننا برحمة Maarama sant ko baay sant ko baay sant ko baay sant ko baay Allah Allah la ilaha illallah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 jërëjëf baay jërëjëf baay jërëjëf baay weeru gàmmu teru na weeru weeru baay weeru gàmmu teru na li de weeru baay la weeru gàmmu teru na li de weeru baay la weeru gàmmu teru na li de weeru baay la weeru gàmmu teru na li de bay la weeru gàmmu teru na lii de weeru bay la weeru gàmmu teru na lii de weeru bay la weeru gàmmu teru na lii de weeru bay la international bi lii de weeru bay la international bi lii de weeru bay la lii de weeru bay la lii de weeru bay la lii de weeru bay la ne weeru baay la lii de weeru baay la ku am leneen jëlal la ilaha illallah ñun baraama day nañu la ilaha illallah ku am leneen jëlal la ilaha illallah baraama la ilaha borom paas yu raar yi la ilaha illallah borom paas yu raar yi la ilaha illallah borom paas baay la ilaha illallah la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 Allah Aida ายได้

yàlla maana am ngeen ngëneel gaa yi ànd ak Sidi Baar amma la taqabu wala taqano ina la maana am ngeen ngëneel gaa yi ànd ak Sidi Baar amma londi jaja sa tër weer wa jàppoon ci kaw asamaaw guddi keroog doy na kéemaan Sidi Barama mu ñu fekk ca biir jumaa ja ñu ngay naafila kaamil maa ngay deeyoog boromam Sidi Barama fekk ca biir jumaa ja ñu ngay naafila kaamil maa ngay deeyoog boromam Sidi Serigne Aliou Cissé fardul jaamiho pay na ngeen ñëw jàngi kaamil Sidi Baar amma lung ñu fekk ca biir jumaaja ñu ngay naafila kaamil maa ngay deyog boromam Sidi Baar amma bi bay di sëlmal mu ngi naan Aliou Diagne xéeneel weer bi jàpp nañ ko sikkar leen ñu jàngi kaamil Sidi Baar Amma Serigne Aliou Cissé bëgg néegam jaame oo pay ne ngeen ñëw jàngi kaamil Sidi Baar Amma njàngam kaamil maa nga ga siikar sang ca kër ga yaram baa ngay deeyoog boromam Sidi Baar Amma Baar Amma nga naan yaa rabbi ya rabbi ya waayidul qaar jéggalal sa jaam bi mu dem sidi baar amma jibril an ko naan buur bi yàlla du la gantal baay ñas sa ñaan du dégg ma bañ sidi baar amma lu naan kaa jubali ca weer wa xabru bañ ko dox ba gaaw na sidi baar amma jibrilan ko naan baraama feeg yaa ngi dox ci suuf si ñaari tabax yu duñ tappoo sidi baar amma ku mënta daaneel weer wi ak jant bi dox ci kaw asamaaw manuloo tee mbindeef yi gëm sidi baar amma ku mënta daaneel weer wi ak jant bi dox ci kaw asamaa manuloo tee mbindeef yi gëm sidi baar amma bàyyi aadi képp ku la romb billaahi bàyyi ñas ku la romb romb na seex tijaan ku dim sërif tey sama mooy sidi baar amma na ko dem gi uuteeg del si bee jaaxal foo deyi soodaan mool bu mag bi tam nay mbaal sidi baar amma baraya bi sango palmaan bi lii moo indi ngalamaan kula reere tabbi waylun sidi baar amma laa ilaaha illallah illallah illallah illallah illallah illallah إله إلا الله إلا الله باي إلا الله باي إلا الله باي بايو بايو بايو بايو باي براما باي براما سنگ بي لا إله إلا الله Muhammad li kan moo waral li